waa waaw waaw Sonko bi li ñu waxati ci moom xam naa lakkal ngeen ko de ba nga yàppi kat doomu jaamur ji. waaw waxee la. waaw. ah man de xam naa ne jaaxal nga ma. ah lu ma jaaxal lu la lekkatoo naanatoo la fekk Sonko Sonko yaa ngi jëpp jëpp jëpp jëpp jëpp. ah man de jaaxal nga ma. ah Sonko de tant que dugul pale bi. Hmm. Eh, du ma lekk du ma naan. waaw ah, te moom moo yaakaar bu réew mi kat moom dégg ca Fall. waaw waaw waaw loolu dégg dégg naa ko de. Ah, waaw waaw waaw ah, waaw moom yaa ngi foo loolu nag soo ko dencee soo ko dencee. te ku nekk xam ne réew mi neexatul ndax yàpp gën ñu ko lekk. waaw leen na xam naa ko yow da ngaa boo xasee ba ba jàpp fenn jeex na. ah jeexuwaatoo ah. feneen. yàllaa ko ñu ko jàpp kat ku ko jàpp mu dem ku ko jàpp te day dem loolu rek moo sa sama kii. waaye dégg naa nga ne ay ku ko laal yàpp mu rëy nga yor. ah pour laal sonko. ah boo ne ah. Ah, day ñalli.